muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa waaye fan yooyu nga xam ne mooy ayaamu dunia am na lu ko gën a yàgg te fekk ay fan la mu di ayaamu rabbi dégg nga inna yowman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudduun ayaamu rabbi benn bés lay doon waaye benn bés bu nekk ca bës yooyee maanaa junni at lay tollool de moo tax nag Baye doon wax ne ahlu dunia fi ayaami dunia wa ahlu rabbi fi ayaami rabbi ñi nga xam ne ñooy ñooñu àdduna ñoom ci fani àdduna yi seen benn bës ñaar fukki waxtu ak ñeent rekk la de waaye ñooñu rabbu nag ñi nga xam ne ci rububiyatu la ñuy dund ñoom seen benn bés bu nekk day tolloog junniy bés de te loolu am na rekk ay junj yu ndaw yuñ la ci mën a junjal ndax xam nga ne buñ nee la doga ngi nii boo xam ne boo ko sikkaree yaa ngi mel ni ku wàcce nangami junni kaamil wax dëgg yàlla nangami junni kaamil nit mënu koo wàcce ci benn fan yow nga toog ay minit jàng ay baat yoo xam ne ba ko jàngee mel nga ni ku wàcce ay million ci ay kaamil walla ñu ne la baata ngi nii boo xam ne boo ko waxee mel nga ni koo xam ne dégg nga julli nga ci yonent yàlla muhammad téeméeri junni yoon ak yu deme noonu ci ay xéewal loola ku cay dund yow yaa ngi nekk ak nit ñi ci fan yi àdduna yi waaye yow yaa ngi dund ci yeneeni fan yoo xam ne bokkul ak fan ya nit ñi di dund de yaa ngi màng ay ngëneel yoo xam ne nit mën naa dund téeméeri at yow ci benn minute wala ci benn waxtu nga màng ci ngeneen loolu loolu mooy ayaamul rabbi ayaamul miraaji nag yaaruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana maanaam ayaamul miraaj moom bu ci nit dee dund benn bësam day tolloog juróom fukki junni at ayaamul rabbi moom benn bës junni la waaye ayaamul miraaj benn bës bi juróom fukki junni la de xam nga ne am na ci ay dog ci mbooti tariqa bi loo xam ne boo ko sikkaree dangay mel ni ku jaamu yàlla fukki at ak ñeent am na ci loo xam ne boo ko sikkaree da ngay mel ni ku jaamu yàlla téeméeri at kon loola mooy junj yooyu de boo fa jógee nag nga daal di jàll nag ci ayaamullaahi ayaamullaahi moom amul lim amul dayo ndax benn bés lay doon boo xam ne bu jant ba fenkee dootul soo mooy wa zakkirhum bi ayaamillah ayaamullaay yooyu nit ki ciy dund day del siwaat ci li ñuy wax al aanu daayim mooy jamono ju sax bu boobaa benn minute bi nga xam ne ci la taxaw ci lay dunde ci maiyatu zaati maiyatu zaati mooy jëmmi yàlla ji ànd gim ànd ak lépp loo xam ne nekk na ci kaw ba ci suuf lépp loo xam ne yàlla amal na ko jëmmi yàlla jaa ngi ànd ak moom loola la koy xame mooy minute bii nga xam ne ci lañuy dund léegi di ko nokki minute bi di mbindee fam yàlla waaye minute bii ña ca Amérique ñu ngi dund ak minute bi ña ca Chine ñu ngi dund ak minute bi waaye ci Sénégal al alam bi fu nit mën a nekk rek minute bii nga nekk yaa ngi dund ak moom loolu nag mooy ayaamullaay bu boobaa képp koo xam ne yaa ngi dund ci loolu bu boobaa benn minute bi nga xam ne moom ngay nokki minute boobu rek ngay nokkee nokkeeti de dootoo am minute bu ko jiitu doo am minute bi ko mujj loolu la ñuy wax alaanu daayim boobaa tam bës bi nga xam ne ci nga nekk amul bësu démb amul bésu suba benn bés bi rek la moom moo teew beneen bés nekku fi dul moom loolu mooy ayaamullah yonent bi nag sallallahu alayhi wa ba muy sujootal yàlla sujootal na ko juróom ñaari téeméeri at ci ñeenti fan yooyu yëpp sujootal na ko ci ayaamul laay sujootal na ko ci ayaamul miraaj sujootal na ko itam ci ayaamul rabbi sujootal na ko ci ayaamul duniya sallallahu alayhi wa sallam mu daal fa awalu cheyin sajada lillahi nuuri mu ne njaal beenu mbir mo yàlla amal mu sujootal yàlla mooy samak leer man yonent bi de leer googu nag la bàyyi di wax naan nuuruhu bàyyi benn baytam boobu rek mu tagg yonentu yàlla muhammad ci laami yebi man ngaa fanaan ba bët set waxuma la bayt bi di jeex waaye baatu nuuruhu boobu la ca aju rek man ngaa fanaan fii ba bët set di ko toj te du jeex de moo tax ñi naan dañuy firi laamee ci genn guddi nañu ngi gàmmu xawma lan la ñuy firi waaye firi wuñ waxi bàyyi radiyallahu anhu de ndax benn bayti bi rek la ca aju jeexalaguñ ko bay mën a dem ca leneen waxuma la sax bayt bi mais chatar bu njëkk ba rek jeexul de moo tax Seydina Omar yonentu ne ko waaw yaa umaru atadri man ana yow umar ndax xam nga may kan ana alladi xalaqa allahu al arsha min nuuri wal kursiya min nuuri wallawxa walqalama min nuuri walshamsa walqamara wa nuura wa nuura al absaari min nuuri mu ne ko man maay ki nga xam ne yàlla mu ngi bind arash ci samag leer mu ngi bind kursiyu ci samag leer mu ngi bind xalima gi ci samag leer mu ngi bind itam jant bi ak weer wi ci samag leer waaw leeru bëti way gëm yàlla yi itam yàlla ngi ko bind mu bàyyi ko ci samag leer mu ne am xel mu ngi bàyyi ci samag leer leeru xam yàlla mu ngi bàyyi ko ci samag leer man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo waral nag bàyyi ne nuuruhu awalul wujudi wujudan leeru yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom la yàlla njëkk amal loolu nag la koy tegtale mooy yonentu bi sallallahu dafa am bés jibril ne ko yonentu ne jibril kam umirta yaa jibril jibril ñaata at nga am yonentu sallallahu alayhi daldi ne ko jibril ne ko ah xawma ñaata laa am de waaye maa ngi fàttaliku ne am na biddiw bu daan fenc ci kiiraayal ñeenteel booba asamaan amul suuf amul dara amul ay kiiraay rekk la yàlla amal kiiraayal ñeenteel la man man waaw man jibril bàyyi naa xel ne am na biddiw bu fa daan fenk bu fenkee balaa fenkati ñu toog juróom-ñaar fukki junniyaat mu door a fenkaat man nag biddiw boobu fenk na ci sama kanam juróom-ñaar fukki junni yoon ak ñaar yonentu ne ko wa izzati rabbi jalla jalaaluhu ana dalika al kawkabu yaa jibril mu ne ko ñaar ci màggaayu sama boroom man yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam biddiw boobu nga doon gis de kooku mooy yonent bi kon bu bàyyi ne awalul wujudi moo njëkk a am wax na dëgg de comme biddiw booba doon fenk foofa nga xam ne jibril gis na ko mu fenk juróom-ñaar fukki junni yoon ak ñaar te bu fenkee balaa fenkati juróom-ñaar fukki junniyaat la ñuy toog ndaw lu yàgg ci yaat loola lépp fekk ndekk leeru Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jaabir laaj yonentu yàlla muhammad ne ko la yàlla njëkk bind yonentu moom la yàlla njëkk bind yow jaabir moom la yàlla bind gannaawam nag mu door a bind lépp lu mu bind mu bind ko ci leeram gi de mu daldi nag di wax te jëlliyaati leerug yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi ci almazahiru salaasati mu ne ndax leer ga ba ko yàlla bindee saxal na ko ci fu ñuy wax maqaamul qurbi muy maqaamam jege sax na fa fukki junni at ak ñaar gis nga fukk ak ñaar lay wax boo xoolee fukk ak ñaar nag ñetti ñeent rekk moo fa nekk de ñetti ñeent yooyu boo ko xoolee loolu mooy li aarifina yi di wax almazahiru salaasa aarifina yi dañu naan almazahiru salaasatun wal mutazahiru waahidun waaw feeñu waayi ñett lañ waaye ka feeñ kenn la te ñetti feeñuwaay yooyu feeñuwaay bu nekk am nga ñeenti saam am nga saam bu ñuy tudde wolu am saam bu ñuy tuddee aaxiru am saam bu ñuy tudde am saam bu ñuy tudde baatinu bu boobaa ñeent yooyu boo ko defee ñetti yoon mu jox la fukk ak ñaar leeru yonent yàlla muhammad gi sallallahu alayhi wa la doon doxe seyru lu jëkk aalam bi di am lu jëkk yàlla di amal dara de mu ne mu sax na ci maqaamul qurbi fukki junniyaat ak ñaar gannaaw gi yàlla def ko ñeenti xaaj yàlla bind arash ak kursi ci benn xaaj bi beneen xaaj bi nit malaaka yi yenu arash ak ñi nga xam ne ñooy bëkk néegi kursi yi yàlla bindi leen ci xaaj bu ko defee nag mu daal di jël xaajub ñeenteel ba def ko ci fu ñuy tuddee maqaamul xubbi mu daal di ko fay saxal fukki junni ak ñaar mu def ko ñeenti xaaj benn xaaj bi mu mu daal di cay bind xalimba gi ak àlluwa ji mu daal di cay bind itam la nga xam ne moo di aljanna sallallahu alayhi wa noonu nag la leer ga bàyyi ko foofu mu daal di ñëw nag andi ko ci fi ñuy tuddee xaw xawfi mu sax fa fukki junniyaat ak ñaar mu daal di koy xaaj ñeenti xaaj bind malaaka yi cib xaaj bindi jant bi cib xaaj bindi weer wi cib xaaj léegi nag mu jël xaajub ñaareel ba indi ko ci li ñuy wax maqaamul raja ba tey mu sax fa fukki junniyaat ak ñaar mu daal di koy defaat ñeenti xaaj benn xaaj bi mu bind ci xel bi ci des mu bind ci xam-xam bi ci dess mu bind ci hikmatu xaajub ñeenteel ba kala ko saxal ci maqamul haya mu daldi di fay sax fukki juniyat ak ñaar boba nak la yalla xol leeru yonentu yalla muhammad gi sallallahu Alaihi Wasallam ko xol rek leer gi dal ñak bi mu ñaké nak mu daldi wicci téméri junni tom tok ak fukki junni ak ñent muy 124 mi ak ñaar fukki ak ñent tok loola nag toq bu nekk yàlla dal di cay bind ruuxu ab yonentu muy yonentu yi nga xam ne yàlla yónni na leen ñuy téeméeri junni yonentu ak ñaar fukki junni yonentu ak ñeent muy xakadun alfan mu tànn ci ñoom ñetti téeméer ak fukk ñett ñu di rusul yi ci biir ñooñu mu daal di ci tànn ñaar fukk ak juróom ñoom la tudd seeni tur ci alquran waaye nag ci biir ñaar fukk yooyu ak juróom mu daal di ji tànn ñeent ñeent ñooñee ñooy ulul azmi min ar-rusul mooy kaleen ak kaleen juróomeel di seydina muhammad muy juróom mu di yonentu yàlla nuuxun yonentu yàlla ibrahima yonentu yàlla muusa yonentu yàlla isa ak yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp di ay tajalliyaat yoo xam ne ñu ngi dëxëñu ci biir jëmm yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi noonu nag la leer ga bàyyi ko mu daal di ba nga xamante ne nii ruuxu yonent yooyu nokki nañu ba ñu nokkee nag mu daal di bind ci seen euh, euh, euh, jëmm yooya bépp ruuxu yonent rekk yàlla daal di amal ci moom ruuxu aw aw waliyu noonu la ko toppe ba jamono bu nekk téeméeri junniy waliyu ak ñaar fukki junni waliyu ak ñeent ñooy doon awliyaawu tasrif yi nga xam ne dañoo am sañ-sañ waaye waliyu dina ëpp loolu sax ci lim waaye nag ñi nga xam ne ñooy doon ahlu tasrif du ñu manqué ñaar fukki téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent boobaa ahlu diwaan ci ñoom lay bokk xutbu bi ci lay bokk xawsu bi ci lay bokk labdaal yeeg lawtaad yeeg lafraad yeeg kumalul aarifina yépp bu boobaa ci lim boobu lañuy ñuy bokk de sallallahu alayhi noonu nag la leerug yonent bi jaar sallallahu alayhi wa sallam ba mu jaaree foofu nag मुने दा मुडाल दीने यूनियन टूबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याल्ला नक बम्मा जारले चलेर योए लव वाच्चे नक समलेर गिची आई कीराय मुडाल दिमाय वाच्चे चिसूफ बम्मा वाच्चे चिसूफ समलेर गिदी लेरल दिगंति पेंको आक सोन मेलनी लांपु बोट आल्टिक लंदम गनागुले याला बिंदा आदमा मोबाइल को चिसूफ मुडाल दी जेफ नक ची जमु जो आदमा लेरु जनम याला मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम leer gi di toxu tukkee ci moom jëm ci siisa waaw di toxu jóge ci góor gu baax jëm ci góor gu baax moo tax bu sayri wax ko ci hamziya bi ngeen doon jàng léegi lam tazal fi damairi lkawni tuxtaaru laka ummaat wal abaaw moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy nag noonu la leer gi di def di toxu tukkee ci aji laab jëm ci aji tey tukkee ci aji tey jëm ci aji laab ba yàlla indi leer gi nag ci ndigal abdullahi ibnu abdul mu bàyyi ko ci moom jëm ci ruhumi aminatu bintu wahabin sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag summa ila dunya booba nag la ma yàlla génne ma ñëw ci àdduna fa jaalani sayyidal mursalin mu def may sangu ni ñu yónni ñi wa xaatiman nabiyin ma mottali ñuy solo ñi wa rahmatan lil alamin wa gaayidal quril muhajjilina sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne nii nag leeru génentu yàlla muhammad gi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko na foofa ko yàlla indi nag ci li ñu tuddee alkanziyatu moo tax bàyyi bi kanziyatin aw kuntu qabla taarufin taharraka min za sirri ma kaana saakina هناك بدا التشتيت من نحو سري وعلقت من ذاك الزمان إلى هنا بايا الله نك بجي مبايكو تتنك كرغ موين ماسكو غم ماسكو وان كان خموكو mu bëgg ñu xam ko moom leer leeru yonent bi la yàlla nag def te jëlli ca leer ga nag ne ko ayyuhan nuur ee yow